بسم الإله مام خليفة مي موفدا كل نون يكي موي كفدا فالكي يتم جخلن درا كاسي ومام دي برادا maam xalifa mi moo fi kil noon ya kii mooy ki fi daa fal kuy yatam jox leen durran kaasiye wa maam di baraada kii moo dundal sunna rasuul aar tariqa reyna bidaa maam yaa ñu wan diina ju leer ju sellu lool sori aada amoo ñaareel ci Mustapha lii laaj ko fooy mbaa nga laaj daa maam sa cofeel ci Seyxuna day yokku xëy kaza rada yokku nga ñu mbóot ay leer xamal nga ñu kuy Ahmada héeme woon lool ci lijaaba maam xamul maas ci ibaada tax doylu nañ ci Europa gisuñu it waa Canada doy nañu rek Makka ak Madine aynu maadi ak bulayda kuy askanoo ci xalifa na lii rek doon sa muraada jàng ak jëfee fonkal liggéey taqoo zikar am shahaada ku fiy wuyoo maam xalifa soril ma lool barxal madda boole mooy yi wanal ginnaaw bu rax sa diina ji aada ñoo ngi lay tagaan yow rabbana ñu sax ci maam wa ayyada mboolem luñ jur lu ñooña jur dooree ko fii ba abada yaa rabbana ñoo ngi lay dagaan mbëggeel gu wóor wastafaada cofeel lu foor ci xalifa day yokk leer dolli huda sollal ilaahu rabbana julleeg sëlmal ci mujtada wa saxbihi ak waa këram ak mbollem kuy al ibaada